ndax dama laa bëgg a sonal moom nee na daal bi mu ko déggee dafa jël rek lal grillage am. macha allah daal di teg dibim. muy Adja madame Seck Ndeye Mbeng daal di jël ku nekk mu tibb yónnee mu ne Oustaz Mor ne ko ndax man nee na man xam na ne man Turia laa ndax tukulóor laa te moom séeréer la su ko defee nee na rek réglé naa situation bi da nga bàyyi Oustaz nag Adja Ndeye Mbeng ñu koy sant waaye nag yóbbuloo ko wàllam Oustaz Mor mii nga xam ne euh, moom euh, juróomi million wu pèlerin bi laa waroon a musuwee xar yi Oustaz Mor nag nanga ko indil wàllam ci ci ci la kenn buggul daal ne ma moom dina ñëw incha allahu taala loolu dama koy def ci digg émission bi mu ne tàndarma bi lan la ko jox tàndarma bi na ko moom gis nga asan fii laa ko koy tegal bu ñëwulee nag wax naa ñëpp bu ñëwulee dina dégg ne jot na ci mu ne daal comme lii ñu ngi koy joxe joxuñu ci mu ne mu ne lii moo ko teg ci tàndarma bi asan ba sama nekk nii kon kenn bëggul ba sa sa sa sa kii jéggal cameraman bi na daw waay ma denc sama sama denc sama nga denc sa kii su ko defee Assane nag bu ñëwulee bu soobee yàlla ba sam dina ko bëgg a jot mu tëkko ndax comme quartier général te xam naa ne itam Safiyatu Muntaga euh, bu Thierno Muntaga ak Umu Salamata ak ñoom Fadouma ak ñoom Ndey Sali ak maître Borso Pouy nee nañu kii yëpp dajale nañ ko dinañu indi li nga xam ne moom lañu def ci àddiya Cheikh Omar Fouti yu dinañ ko teg ci sama loxo suñ ko tegee ci sama loxo itam dinaa ko joxe publiquement comme nii ndax in tubdu sadaqat la ñu wax waaw aw tufuha ñaar yëpp baax na parce que li kenn bëggul def comme ñun bii ñemewuñ koo laal waa firi joxuñu ñu ci ah Oustaz kon ñun tamit suñu gisee ku nu jox rek ñu ñu ñu jël Oustaz bu ko defee tey nag danga dama bëggoon nag nga ñëwal ñu tey ci ki nga xam ne wax dëgg yàlla xam na ne euh, muddum koor ci boppam njëriñam ndax dañu ne nañ ko joxe euh, min urubi sams ci laylatul aid bi bu bi bi bu jant bi sowee waaye ussa man mi nga xam ne dama yore njaboot war leen jëndal yére war leen a ñawlul war a jëndi ndawal te jouru korité gis naa ne Sénégal boutique yu ëpp du ubbi tailleur yi day fekk fees nañu marché yi tamit dañuy tëj ndax du baax ñi ne mudd rek la ñuy génne ci ceeb rek lañ koy génne wala ci dugub rek wala ci mboq ndax duñ ko mën a génne benn benn ci koppar bu ko defee man ma mën a daw ca marché ba ñetti fan yi jiitu wala ñaari fan dem jëndal njaboot gi ndax loolu lislaam dina ma ko autorisé wala déet. dinaa ci ñëw léegi mais dama bëggoon ubbi benn brèche bu ndaw rek. waaw bu quelques yi rek damay ndokkeel. waaw ndokkeel Sénégal. Mhm. ci concours alquran. Ah, ah ah ah yow yow yow boo ma jege woon dama lay reyal <laughs> non démb kontaan gi ma kontaan. Euh, ku ma xam Maroc rek woo naa la. ndeysaan macha allah. xam nga xam nga Seyda. Mhm. ñun yàlla daf ñoo nattu. Mhm. nawunu sunu bopp. wallaahi ñun naw nawunu suñu bopp. du nu tàcc sunu bopp. xam nga am na ma benn benn benn rakk jarbaat rakk. Mhm. Matar Thiam. Euh, buy encadre ay xale. Mhm. bu xale yi defee lu baax day wax xale yi tàccu leen seen bopp. wallaahi wax na dëgg. xale yi tàccu leen seen bopp xale yi di tàccu seen bopp parce que xale yi. Mhm. def nañu lu baax. Mhm. Euh, dañu am concours alquran fii boo xamante ni bii euh, daara yi nekk fii ñoo ko organiser ànd ko ak Sénico ab Dia yal na yàlla may ko wér guddal. fan guddal fanu borom daara yi amiin wax dëgg yàlla. Euh, ci li mu def ci alquran ci euh, ci biir weeru koor bi ak ñi ko doon jàpp ci liggéey bi yépp <coughs> ba yàlla dogal Cheikh Mahi gañe ko yàlla def ci ndam muy ndam lu rëy boo xamante ni xale bu tuuti mokkal alquran foo cuq mu dem loolu mu waroon nekk lu nga xam ni dafa waroon nekk à la une ci journaux yi defuñu ko ala yin yëpp la war a nekk journée ñu wane xale bii mooy ki mokkal alquran macha allah mais loolu rëcc nañu mais démb ñu amaat beneen sens sens bi ñu amaat démb Seyda mooy xale bu nga xam ni xale yooyu nga xam ne moom mokkaloon alquran fii ba ñu tànn ko mu jël pay bi mu demee Maroc ci concours ba sénégalais yi ñoo raafle trois prix yi ñetti prix yëpp. Sénégalais ñoo ko podium bi daal. Sénégal 1 Sénégal 2 Sénégal 3 Sénégal. ñoom ñoo ko. ci Maroc de. ci Maroc. waaw ci naar yi nga xamante ni bii ñoom lañ doon gën a naw. xale yooyu xale bi jëloon paie moo fa jëlaat paie encore loolu li muy tekki mooy jury bi ko doon jugé fii honnête nañu. ma xam nga démb wallahi azim oustaz yàlla na la yàlla may fan bu gudd ak wér gi yaram dama ne ñoom de waat nañu wàcc nañu. waaw ndax xëj na sax bi ñu bu génnee comme ren. yàlla dafa defoon euh, journée bi euh, ñu bàyyale woon ko seexal islam Ibrahima Niass xam nga xale bi gagné nekk njaboot foofu. xam nga euh, euh, njortu dafa mën a am nu muy demee mun nañu ne ah kii kat xëj na li ñu bàyyile moo tax ñu ñu ñu ñu ñu privilégié ko ba jox ko première prix bi mais yàlla ne déedéet kon il faut que ma atte gis nga ñun léeg-léeg jigéen ñi dafa ñuy dal dañuy tiire tirage ñu tiire kenn génn ñu wutal ko ngànt daal ne nekku fi wala nattam ñëwagul walla kii nañ ko dugalaat oustaz yenn saa yi dañ lay dugalaat yàlla génnewaat sa tur. allahu akbar. yenn saa yi ñu dugalaat la troisième fois yàlla génnewaat sa tur. ñu bi nekkee booy bi ñu nekkee booy di di football ay petit camp yi. waaw bu arbitre bi sifflé te normal loolu dañuy wax dañuy bu ñu meree dañ naan fa dëggu yàlla jaaroon yàlla fa jaaraat. mu ngoog xoolal dëggu yàlla jooju nag moo tax tey lu mel ni Maroc nga xam ne l'islam bi muy dugg Sénégal dafa jaare foofu ci murabitini ñëw di egsi nga xam ne ñoom seen làng bi nga xam ne moom la ñu nàmp mhm. ci la yàlla wàcc alquranul karim ci seen arab boobu nga xam ne moom la ñu nàmp moom la ñuy wax mhm. mooy seen luga rasmiya ci seen dëkk mhm. yow nga nekk fii senegal nekk ca àll saalum bële nga xam ne gerte geeg dugub ji bala ñu ko am ñetti weer ci at mi mu metti lool bu neexee ba neex sama benn nijaayu yu saalum saalum soxe mu ne ma hay Fatou tey dañu dañuy noos de ma ne lan mu ne tey maa ginaar la ñu togg. Allah maa fi ginaar. xam nga kooku tey mu dem yàlla di ko may mu gañe fii ñu demaat ba Maroc mu gañe waat ñu ne deuxième ñu ne waat Sénégal ñu ne troisième ñu ne waat Sénégal oustaz loolu ku mu neexul. surtout ci ay catégorie yu wuute waaw yu wuute. moo tax ma ne ñaari ture ture ak benn njóobeen ma ne ah man ko démb dama doon waaj sant ja waaye naa ko delloo waat ci njóobeen bi. <laughs> day leen gaynde jóob lay sant. Seyda loolu. loolu tey dañ ko waroon a feet président de la république bu ñibbisee ak jàmm ak salaam ñooñu war nañ xoolal football bi liñ ciy def ci ay milliards xoolal football bi niñ koy supporter te ba léegi mënuñoo dem sax euh, demi-finale. déedéet mais léegi xam nga lii lii li muy laaj. Hmm. mooy ministre bi ñu dénk jigéen ñi xale yi. waaw. lii lii fa la war a teg tànkam jóg ci wax ci. waaw moom moom dinaa ci ak moom moom moom sama sama sista la baax na mais da nga koy défendre mais nañ ko wax ne ko na dem gàttandu ji xale yi na leen defal teraanga ah, na leen tàggal parce que mooy non non dëgg la dëgg dañ koy wax ak waaye bu soobee yàlla tey moom. bala maa tëdd si lal dina dugg si noppam su ma génnee léegi dina woo moom lañ dénk xale yi xale yi dem nañu am nañ ndam waaw na dem kar leen ay rapport teral leen waaw ku nekk mu accolade la bu fekkee dañuy tere accolade mu mu ku nekk mu nuyu la bu dee dañuy teru nuyu ku nekk mu simmi la sàppo lalal la mu sóoram ne la sama doom nga am nga ndam yaa ngi nekk fii barki dem ba xale bu jëkkër bu jabar bu woo jëkkëram mhm. wax ko ni ko sant naa la gërëm naa la parce que sama doom mokkal na alquran ba moo ma jiitu la mu doon moo jiite la ma doon dégg cant gi ca naar ya tey ji sama doom moo ma koy wallaay dëgg la wallaay dëgg la loolu xeet la ci remerciement dëgg la loolu nag xam naa ne càmmiñam euh, monsieur le maire Samba maire de Ndofane mu ngi koy dégg moom si boppam sax dama ko ciy boole waale nit du wutal boppam noonu waaw nit du wutal boppam noonu te moom nag wallahi azim xam nga lan moo tax xam nga kan mooy papaam Mbaye Diop Sali wallaay xam naa Mbaye Diop Sali bi nga xam ne moo nekkoon président fédération bu Tijaaniya moom dafa judd gis nga moom yaayam wallahi azim am na loo xam ne ndey sali ci boppam sax yaayam ci boppam moo ma jëkk a takkal jaaro or keroog ba ma ko ko waxee dafa dindi jaaro or bi nekkoon ci loxoom ne ma li sama yaay defoon laay def daal di may solal jaaro or bi kon xam nga kooku bañul bañul mais dafa am yenn saa yoo xam ne rek da leen di occupé occupé occupé mais incha allahu taala maa la wax ne nday sali dina dina feetal xale yooyu. Ah, incha allahu taala moo gën a rafet. waaw parce que moom lañ ko dénk ministère am la moom lañ ko dénk. moo yur xale yi question jàng alquran ak jàng daara mais ñoom lañ ko ah, dénk. tey ah, leen nag. <laughs> wallaay xam ko ndam rek waaw waaw bëggal ko ndam rek. man pense que ni man ak moom ma mhm. ñoo bokk avion jógee Màkka su fekkee ne bu dul moom di rakkam bu jigéen waa waa waa këram ñoom Adama ak Awa ñu bëgg a màkk ñu dul rek waaw su ko defee oustaz fi fi ma nekkoon rek ñu delluwaat foofu kon daan mbokk yi mu ngoog Sénégal amati na ndam euh, li ñuy wax naan euh, senegal ki gañ nekkul rek ci football ah, nekkul rek ci làmb ji mais waa waa waa waa daara bi nga xam ne ñoom lañu ñu gën a xeeb ci réew mi waa daara bi nga xam ne ñoom la ñu gën a tuutal waa daara bi nga xam ne ñoom la ñu jë gën a ñàkk jox gëdd ñoom rek ñoo fi dem di ñëw di indi ay médaille door léegi nag bi yoon dañoo indi médaille door ñu ne déet na waaye ñu indi argent ñu ne déet na waaye ñu bronze ko loolu moom mosul am ci réew mi ci benn compétition bu ñu mus a dem ci bitim réew defi ko oustaz ci li ma li ma fàttalikoo mosu maa gis football bi ñu ne médaille d'or argent bronze yëpp benn nit indi na ko kon nag ren Sénégal du ci judo du ci taekwondo ci kung fu du du ci dara judo du ci mani Ah, yàlla yàlla fay xale yi waaw mu ngoog kon sëñ daara yi chapeau sëñ daara yi chapeau waaw waaw vraiment vraiment macha allahu taala alhamdulilahi rabbil alamina mais na ñooy ahlu quran ci ñoo ànd ak yàlla borom bi subhanahu wa taala waaw 88 628 22 22 waaw man nag man firi man 88 628 04 05 man damay waaj a dem ku jaar rek mën na ànd ak insha allahu taala ku jaar rek mën na ànd ak ñun incha allahu taala man damay waaj a dem sax si beneen kii boobu beneen opérateur bi may naa leen tey bu ñu bu ñu yënguwulee mm. dinaa dem ci ñi nekk ci VDN te ñu am immeuble bu mag boobu ndeysaan ndeysaan waxu waxu waxuma ñi seen kii nekk burtukaal de mais ah, ah, ñeneen ñi su ko defee oustaz léegi ñu ñëw rek ci waxoon nga waxoon nga léegi ci ci ci muru mm-hmm. koor yi muru yi waaw nga ndax ndax mm-hmm. mun naa ko génne xaalis waaw waaw xam nga Seyda. addiinu yusrun. addiinu. yusrun. diine mettiwul. jafewul. mettiwul jafewul. yuridullahu bikumul yusra dafa am ci fuqaaw yoo xamante ni dañoo catégorie. wax ni ñoom ci nourriture yi rek lañ koy génnee. waaw mais am na ñeneen ñu d'accord ni mën nañ ko def espèce. joxe ko ñoo xamante ni bii d'accord nañ ne mën nañ ko def espèce. man nag damay rejoindre ñooñu nga xam ne wax nañu ni. mën nañ ko def espèce joxe ko euh, ndax bañ dugg ci euh, taasub. taasub mu waaw bañ a dugg ci taasub. xam nga xam nga sax boo gisee hadis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom lor su la waxoon ak tàndarma. waaw. xam nga ñun am dunde wuñu tàndar waaw ñun tàndar ma defe naa ne bu bëree ba bëri koor ñu booleeg moom ñu lekk ko heure ndog wala sëriñ bi am na ku nekk si ligne bi. ku nekk si ligne bi macha allah. salaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam. ok Adja na nga def. maa ngi sant bu baax alhamdulilah. tur tur bi naka la yaa booy. Seynabou Seynabou Ndiaye laa tudd. Adja Seynabou Ndiaye foo nuy woowee. maa ngi woowee Louga Grand Louga. Louga Lo. waaw Louga Lo waaw. ndeysaan sama benn doomu bàjj na ku yées ci kaw suuf. ndeysaan ndeysaan dëgg ak ay yées. a Ngom la tudd ak a yées. mais ci wetam ci wetam am na ku baax ku tudd Ndeye Seck. ndeysaan ndeysaan dëgg la ndeysaan ndeysaan. Seyda. waaw bàyyi ma ak Seyda démb naa ko ba kon jotuma ko. Adja Seynabou. waaw yaa ana kan mooy doomu Seyduna Muhammad. sallallahu alayhi wa maa ngi nii de. <laughs> ana kan mooy soxna Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa gis nga lii xam nga lii dara dàqu ko. Zeynab yi eh, xoolal da yéen ñaar yéen a bokk baay. waa ñoo bokk benn baay waaye ñoom dafa amaat lu ci gën a neex ndax yonent bi daa amaat ñaari soxna yu tudd. Zeynab macha allah ndeysaan eh, ndeysaan da doon toog. bu bu nit ñëwee nuyoo ne asalaamaaleykum. mu daal ne salaam kook kan la mu ne ko man la Zeynab mu ne ko aye Zeyanib kan la ci Zeynab yi nga xam ne moom ñu bari bu ñu tuuboon buy changé seen tur Zeynab la leen di tuddee moo tax yow wax dëgg yàlla Adja Zeynabu Jóob kontaan naa trop si yow <laughs> du la santale Ndiaye Diop laa lay santale. Diop <laughs> nga may santale waaw léegi Seyna ah affaire yaa ngi nii de am na boo xam ne su fekkee da nga bëgg a nuróoleeg oustaz Mor couleur mu ngi nii. Ah, ma ne ma ne ma ne tissu yaa ngi nii waaye tamit koppar yaa ngi nii. man daal ci koppar yi xoolal xoolal bu ñu xefee ma may la lépp. Ah, ma lekk waaye léegi nag waa waa régie may leen ko xaalis bi nekk ci kër gi yëpp li ñuy joxe quartier général gi yëpp may leen ko ko léegi bàyyi naa ah, la loo amul rek si ñoom la miyaa la madame Ndour man may naa la lépp. yaa jël <laughs> na ko ndeysaan alhamdulilah macha allah. ndeysaan kon nag mi ngi noonu. Euh, eh, waay waay nañ leen yokkal lii waay. wallaay ndeysaan. hada qalil jiddan. Ah, moom day euh, xam moom. boo waaw nañ leen ko yokkal waay nañ leen ko yokkal waay. booy wax wala wala boog suñu leen joxee lii ñu joxaale leen benn. benn tissu waaw nañ leen euh, miyaa. ñii nañ leen joxaale wax leen ñoo ñu di séddale waa sant yàlla boutique ak ok euh, léegi dañ joxe tissu xaalis waaw xaalis bi nañ leen yokkal ku am xaalis ak nañ la joxaale benn tissu benn tissu ma sax dama war ñu jox ma brodé bi waaw brodé bi de buñ la ko joxoon te nga ko yóbbu wala yaa fii laa koy bàyyi yow laa koy jox déet man tamit damay gore xam naa Assane moom du am ndax Assane moom tàndarmaam ji ak kopparam yi bilaay di nga xam ne tardé baaxul bu ma paree léegi sama saak bi laa koy def xam nga keroog am na ku la jox dara Euh, Sofital ma ne la duma la ko jox Sofital yóbbante waat na ma leneen waaye tey soo nekkee fa nga nekk di nelaw booy boo nga yeewu ñëw sinon duma la ko jox te loolu nag dafa bëri ndax euh, boobu basin bu baax la. ndeysaan waaw. waaw ah, oustaz léegi léegi ci ci muuru koor bi mhm. xam nga euh, diine l'islam diine bu laabiir la bu yaatu la bu jàppandi la. Mhm. comme fuqaaw am na ñu wax ni dañ koy ci lekk rek lañ koy yemale. Mhm. ba ci ñun tamit macha allah dañu ci gën a bëri ci ñun. dañuy am sax mën ko génnee xaalis mais dañuy taxaw foofu rek ne ceeb lañ koy dax mais boo xoolee kon situation yi ni muy dundee. da ngay ni muy demee da ngay rejoindre ñi wax ne mën nañ ko génnee ci xaalis. waaye oustaz jouru fête fii ci Sénégal kan mooy togg ceeb këram. kenn kenn kenn mën na suñ ko duñ togg ah, ceeb suñ ko duñ togg ceeb. ceeb dañ koy lekk du premier er janvier au 31 décembre. kon kay bés boobu dañoo bëgg a soos mburu ñu def ko kii ni ni kaalidu kaalidu sama kii makarona dañoo bëgg a lekk euh, euh, hande ko def ɗon mi ko so o wi na waɗi makarona mane ko ala min ngala makarona hande kaalidu maa ngi koy nuyu kaalidu camara Thiès sama sama sama sama cousin la moom suñu toggoon reer mu ne ma Yves Binta holko def ɗon hande ma ne ko xawma luñ togg de mu ne na woodi makarone <laughs> kaalidu makarona kon jour kolte oustaz ki war a togg soos nga jox ko ceeb kese oustaz ceeb kese lan nga ci mën a def. soow bi wallaay yombul. Ah. yombul te surtout heure yi ñu koy génnee ak heure julli bi diggante boobu soppi soppi fi dara yomb fi. et puis day fekk sax magasin yi tëj ah su ko defee kon léegi mbokk jullit yi mën nañ koo génne ci xaalis bu dee xaalis oustaz nag ñaata lañ koy génne. waaw xam naa ni comme comme dañuy wax deux kilos huit cent. Mm-hmm. xam naa ni mille francs ku ko ku ko am. ku am 1000 francs dina baax Sénégal laa bëgg wax. Sénégal Sénégal Sénégal ku am 1000 francs di nga sës rëkk ba déborder. Mhm. ñi nga xam ne ñoo nekk bitim réew parce que. bu ñu fàtte ne nag wareefu du wareefu oh, Sénégal oh, kese de. waaw déedéet moo moo tax moo tax ko ci Sénégal. waaw ñoo bàjjen mati xam nga. waaw xam nga bàjjen mati boo ko bu yónnee fii euh, euh, euh, ñaari ñaari dollar lay. def kon ñaari moom ko fi yónnee moom dañ koy kaata moom. ah bàjjen mati nga wax de. bàjjen mati ñaari dollar mooy ña mooy tolloog la ñaata si. Ah, moo fi 1000 francs deux dollars moo fi. deux moto moto doy tuuti ci moom parce que deux dollars moom motu ko lekk. motu ko dara dëkk bu nekk ak ak ak ak ak. kon kon ñi nekk Europe ñoom it ak ñi nga xam ne nag. ñoo nekk xool euh, ñoom lan mooy yell ci ñoom. waaw ñu de seen fuqaaw yi dinañ ko dinañ ko fatwa. dinañ ko fatwa wax leen ñaata la démb tamit maa ngi seetaan benn affaire bu yéeme. muy ñi nga xam ne fan yii ñu ngi naafilaa ci église bi. Balti waaw. fële Baltimore la de. Mm -hmm. du Baltimore de des na beneen dëkk ba nekk euh, Allemagne. Mm -hmm. fi ñuy jullee dafa xat mënuñu def mesure barrière yi ñu santaane waa église bi ne leen ñëw leen église baa ngi nii ñun benn yoon rek lañu fi ñëw dimanche te sax yenn saa yi ñu toog ay weer kenn du fi dugg te yéen gis nañ ne da ngeen koo soxla cinq fois ci jour bi gis nañ ne koor gi guddi gi yëpp ba fajar da koy soxla ñu ñëw jël ay rideau muur sii ñu yëli statue yeeg yooyu yëpp ñu muur ko lalal leen ay sijaada jox leen sijaada jox leen masque actuellement nii Allemagne la am ñu ngay jullee foofu macha allah taala. isaan xam nga xam nga loolu. mooy mooy cohabitation. yonent bi ma ne leen pourtant sang ba defoon na ko. alayhi salaatu wa salaam tey Seydina Mohamed. alayhi salaatu wa jóge ci la weex na tàll la ñuul ne kukk te wax ci moom ay jaar-jaaram ak li nga xam ne muamala hasana bi nga xam ne moom la doon def ak nit ñi ak miineel gi nga xam ne moom la miinoon njaboot gi. moom la miinoon dëkkandoo yi xoola xattaa jigéen ñi dañu amoon journée boo xam ne moom Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam da leen doon recevoir di leen jàngal moom moom parce que moom yonent bi dafa accessible lool saa yoo ñëwee rek danga koy gis macha allahu taala oustaz léegi d'accord nañu mun nañ ko joxe xaalis waaye ndax mën naa bu ma jógee ci laylatu qadar bi rek lundi xam nga léegi mardi mercredi jeudi trois jours moo ciy des ndax mun naa koo commencé joxe wala déet. waaw parce que dañuy wax ni boobu nag war-war bi duggagul moom. waajibaat bi duggagul. waaw war-war bi duggagul. Hmm. léegi dañuy bu bu desee benn fan wala ñaari fan. waaw benn fan. wala ñaari fan mooy ma ba am ñaar fukki fan. ak juróom-ñett mu dugg si juróom-ñeent bi. waaw si laa koy commencé rek di ko joxe. ba ci fanweer itam gis naa lenn loo xam ne dama koy jàng toujours ci téere yi mais néew na. Hmm. wóor na yàlla euh, moyen mi dix mille francs ak euh, ay lu tam tamar bi mm. oustaz kii nii nga koy bàyyee rek yaroo sa doom ji de yaroo sa jigéen bi yaroo sa doom ji oustaz yaroo sa sa doom yaroo sa jigéen danga nga ñoo bàyyi rek ñu nekk ci kër gi di def lu ñu neex bu ma gisee muus fii di daw oustaz bu fekkee ne macha allahu taala fu ma nekkoon ati yaa ngi doon wax ci ci ci muuri yi waaw mm. léegi kon léegi mun nañ koo joxe ci xaalis hmm. baax na mun nañu mais kan laa koy jox waaw kay ndax léegi man bu fekkee ne sama sœur walla sama sama yaay dama leen dama ko waroon a yónnee dundam walla yooyu ndax mun naa profité waale joxaale ko ci ci muddum koor bi rek mu nekk faf dund weeram bi walla déet non sa yaay moom bokk ci hmm. sa waajur bokk ci hmm. sa borom kër tamit mën nga koo jël sa borom kër mën nga ko jox. waaw waaw mani. sa borom kër moo mënul dox. mani. Mhm. sa borom kër tamit su la neexee mën nga koo jël. mais nekkul ne par force da nga koy jël. mais sa yaay mën nga ko jox mën ko bañ a jox. Mhm. sa papa mën nga ko bañ a jox. mais sa mbokk bu mu mën a doon mën nga ko jox. Mhm. sa mbokk bu mu mën doon. mën nga ko jox. sa jëkkër. mën nga ko jox. mais boo fekkente ni bii da nga boole sa alal ak am ngeen nekk benn. ngeen def bien commun. comme léegi monogamie communauté de biens. waaw su boobaa mën nga ko jël. waaw ah, ndax seen alal dafa duggante. waaw kay mën nga ko jël. mais bu fekkee duggantewul di ala qawli baadil aqwaal ci yenn yenn ci borom xam-xam yi li ñuy wax. Euh, foofu li ma fa bëgg a feeñal rek mooy ñun jigéen ñi sunu borom kër yi même buñ leen ëppalee ñoom ñoo ñu war a dundal. waaw ñoo ñu war a jox dépense ñoo ñu war a dëkkal. ñoo ñu war a dëkkoo ñoo ñu war a wutal jànq ñoo ñu war a wutal faj ñoo ñu war itam temps en temps ñu yebal ñu ci fi ñuy jaayee or yi ñu dem ñu jël fa or ñoo war léegi tamit chaque mois ñu di ñu jox argent de poche. am na ku ma wax ne Badiane Mati Diop nee na daaw. 8 mhm. dollars lañ leen waxoon. 8 dollars. 8 dollars lañ leen waxoon 8 dollars par personne. waaw ku ci am fanweeri doom ak ñeenti jabar ak ñetti jarbaat ak juróomi surga sa bos mën nga ma koo yónnee. ma dinaa xam nu ma la koy sedd séddalee waaw booy Aysatu dafa am xaritam boo xam ne jëkkër ji ak jabar ji dañoo dem màkk ñuy aj léegi nag jëkkër ji kilifa la mais buy woo jabar ji naa ko booy Aysatu xam Aysatu dafa reew xam naa ma ne ma ne lii de ma ne sama xel ndeysaan li tur bu yàgg la léegi waa kilifa gu mag la ci ci ci ci gendarmerie maa ngi koy nuyu di ko ziyaar mais mook jabar ji ndeysaan booy la ñuy wooyantee bu ko nee booy mu ne ko booy waaye yow tamit booy euh, te ak xart gis nga de lii nga xam ne lii macha allahu taala xam nga tey yëfi kenn bëggul yi dama koo siiwal ndax dafa def lu rafet ndax kenn buggul macha allah benn jigéen la boo xam ne arma la jëkkëram génn na àdduna mu sëcceeloo mais daf leen a bëgg. démb mu ñëw ne ma lii joxal ma ko oustaz Assane téyel daal di siy teg lii combat free ba léegi ñoom free wuñu mu teg ci lii léegi na damaa naroon boo taar tardé dootu ci jot oustaz moo jox naa ko bosam man sama bos bàyyi naa ko ci kër ga muy kenn buggul ba xam nga nit ñi dañ koo war a toppandoo ñëpp bëgg waaw mu ngoog ah kon ñëpp bëgg nañ ko ñëpp bëgg nañ ba bu kenn waxati kenn bëggul ñëpp bëgg jeex na tàkk macha allah xam nga lii dafa neex waaw waaw dafa neex si xol torop wala vraiment vraiment yàlla ko yàlla fay waaw ama teg ni waa fii ñu dara tam mën nañ jiwaat la sa yëf léegi nag am na am na ay immeuble bu nekk euh, ci beneen bi te ñu am kii bu gudd boobu waxuma burtuqaal de ñeneen yi xam naa fi ñëw euh, léegi nag may naa leen ba suba bu ñu réagirulee ñooñu dinaa tudd seen tur te ñoom dinañ fi ñëw ci ñun <laughs> waaw man xam nga moom maay maay maay jigéenu Youssou Ndour te Youssou Ndour nee na ma télé bii wareefu Ramadan lu la neex nga ciy def Oustaz Mor léegi Oustaz Assane démb. mu nuyoo mu nuyoo. ñu ngi delloo ziar si. Euh, Oustaz Assane démb sañse nga sañseeti nga <laughs> sa noir boobu rafet na torop torop am nga chance nag ndax bu kaaw doon dund. damay dem ci mareem rek ne ko asa ana valisu Assane bi. mu ne ma mu ngi nii ma jël yëpp yóbbul ko kaaw mais comme kaaw nekkatu fi macha allah am nga chance ma jox la nga nuyoo. Euh, Seydi Seck sa sa teewaay. Uh-huh. ci quartier général daf ñoo neex. ndax indi nga fa yar indi nga fa sañse te nga fa xam-xam tawilul qaama zuhaya <laughs> alhamdulilahi wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam uh-huh. eh, ginnaaw bi ñu santee yàlla julli salmal si ngën ji mu def si yid sallallahu alayhi wa ñu ngi amati mbégte jàkkaarloo waat ak eh, yow oustaz Mor Thiam fa ak téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ñu gën a bëgg sax waree fa ramadan boo tardé benn minute rek ñu commencé ña ngay woote ña ngay message ña ngay nangam waaye alhamdulilah lii rek lañ si namoon ñu dem ba def ko seen fi bopp ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen sargal di leen ziar di ziar kilifa di diine bu baax ñaanal leen suñu borom subhanahu wa taala defal leen jàmm ñu yàggu fi loolu di ñu gunge fa tabarakallahu waaye ziar ñëpp sayda di wax ne euh, yéen ngi ci li nga xamante ni di doon waxtaan ci zakatul fitri waaye xam nga ndeysaan weer waa ngi dem. ndeysaan wallaay gan gu neex. nuyoo tàggoo. ndax yàggul dara ñu ngi doon wax naan kañ la kañ la kañ la mi ngi nii ñëw na ba fa tabarakallahu macha allah mu ngi waaj a tàggatoo ak ñun yàlla ñu ko fekke ay déwén yu bëri wallaay wallaay day faral di wax rek li ëpp solo rek mooy yàlla ñu ko yàlla nangul amiin amiin loolu rek moo am solo mu nekk suñu njotu safara mhm. nekk suñu passeport aljana comme ni nga koy waxee Seyda amati mbégte àndati ak yow oustaz Mor Thiam yàlla na yàlla dolli jàmm euh, fa tabarakallahu macha allah ziyaar bu baax ñi nga xamante ni itam ñoo nekk ci régie bi ak ñuy topp Seyda soppe yeeg mbokk yeeg xarit yeeg dëkkandoo yi am di jàmm yëpp mhm. ñu ngi jottali maa ngi leen di jottali seen nuyoo mhm. sa diggante ak yow Oustaz Mor Thiam macha allah mhm. di leen ko boole fa tabarakallahu ñoom itam ñaanal leen yàlla rek yàlla defal leen jàmm ndax kuy wax ku ko déglu la bëgg dëgg la te saa su nekk képp kenn suñu rek mu ngi jot ay yóbban ak ay ndax lii ajaa ñëpp bëgg na def ni ajaa kenn bëggul mm-hmm. yal na yàlla yërëm borom këram xaare ko aljana ak mboolem jullit si mm-hmm. barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam mm-hmm. yàlla euh, dafa neex ci xol ndax xam nga ne lii ku nekk soxla nga ko te ku nekk oustaz gis nga sama yaay dafa ma doon wax ne ma suuf sax boo ko tibbee jox ko nit teraanga la parce que lii am na am na ñu ma ko jox ci njabootam am na ñu mu ko jox ci famem mais moom toujours dafa leen di xalaat salaat tasbix ba fajar lay ñëw sama kër. su su kiyee soo ngeen xewlee dara. fajar lay ñëw toog yàlla na ko yàlla fay vraiment euh, ko xaal pulaar noon kenn buggul mi weltima mi ma mi totti ɗum euh, oustaz mor e oustaz euh, assane ko tottunoɗaɓe ko e tamaroji e kalis fof mi tottiɓe a jarama oustaz wi noon oustaz Assane na tuddatoo ken bugul ken bugul moy hay goto yiiɗa o wi yimɓe fof ne jiɗma ɗum noon a jarama yummum aysa mi weltanima no fewi yo allah yooɓe moƴƴere ane mawne sohna koura madame thiam seydi baax on jaaraama ak sohna awa thielo se madame li madame thielo awa lii ñu ngi leen di ziar bu baax macha allah waa Oustaz Assane léegi ñu ngi woon yaa ngi ñu daboon hmm. def nañu pensée du jour bi mais ñu ngi nekkoon tey ci muddum koor mi léegi oustaz wax na ne mun nañ ko joxe xaalis mhm. kañ lañ koy joxe oustaz wax na ko bu desee ñaari fan mhm. léegi problème bi mooy ñiñ koy jox ñan lañu mhm. oustaz commencé woon na ne nañ ko jox koo xam ne dundam waru la waaye man damay laaj kon liir bi juddu tey ci fajar oustaz kooku woorul woon di ak ki nga xam ne moom da doon mudd woorul si koor gi ak ki nga xam ne dafa génn àdduna ci bésu koor bi ci bésu korité bi est-ce que kooku moom dina dinañ dina génne dinañ ko génneel muddum koor xam nga koo xamante ni kii bi war bi war war bi war fi la ko fekk rek waaw duñ koy génneel hmm. kon bi nga xam ne daa xaar ba jouru korité rek mu profité a lekk si laaku korité que war-war bi fekk na ko fi rek. fekk kon moom it dañ koy génneel en tant que bébé. waaw dañ koy génneel waaw. dañ koy génneel war-war bi fi mu ko wekkee rek dañ koy génneel. allah taala nag euh, yaay ji. yaay maanaam man mi koy génnee. Mhm. duma ko jox sama yaay. Mhm. du ma ko jox sama papa parce que mhm. ñooñu maa gàddu seen dund. seen dund mais bu dee jigéen la. mën na ko jox borom këram mën ko jox borom këram ndax gàdduwul dund. borom këram gàdduwul dund borom këram. mën na ko jox borom këram. yonent bi waxoon sallallahu alayhi wa sallam sa sarax bii kat. sa jëkkër ya yoon na ko sa doom ya yoon na ko. wallaay ndeysaan ndax yow jigéen gi mais bu dee ko góor ki moom. jabaram du ko yeyoo parce que moom mënul dox azaka jabaram ndax jabaram moom moo ko war a dundal donte ne jabaram dafa yore ay milliards yu bëree bëree bëree bëri kon loolu am na solo gis ngeen diine lislaam fi mu teg jigéen kenn tegu ko fa du benn doctrine du benn penseur du benn xam-xam du benn politique boo xam ne yëkkati ne jigéen foo xam ne foofu la ko diine l'islam yëkkati comme li ñuy jiiñ defe ne l'islam daf ñoo ñàkkal solo nit lislaam kay ñooy nekk ci l'islam yore seenu prix féetale ko ci noo xam ne bokkul ak ni ko yàlla borom bi subhaanahu wa taala santaane mhm. ba nga xam ne dul xafi yi bëgg nañ ko dellu si parce que cëraluñ jigéen ci dara loolu lu ñuy jooy la oustaz dafa am nitu diine yoo xam ne dañoo joxul jigéen benn cër ba nga xam ne mhm. soo soo soo soo dafa am ko fëgg dafa am ko dafa question bu ñëw léegi waaw euh, dafa ni euh, masalan koo bokkalul diine mhm. mu nekk sa biir kër. nga ndax yaa ndax da koy génne waaleel wala déedéet. lu ko ci mbaam mbiqi galgal mbaam mbiqi ko ci galgal bi. ndax lan kan la koor war. warul julli waru la. Hmm. koo koy mu dum koor warula yow koo boo toggee salaax rek. comme moom mayoon na la ca ngal la xam ngir xusul jiwaar nga yow tamit nga yekkal ko euh, euh, laax. ki nga xam ne ba mu toggee ginaaram ya mbaam ya ba mu ko toggee waaye mayu la ci mbaam waaye defalal na la ginaar ak xar ndax am na chrétien yoo xam ne dañuy togg ay ginaar ak ay xar pour seen xaritu jullit yi ñooñu nag yow tamit jullit bi jouru korité na nga góorlu ba bañ a joxe laax kese ak beñe mais nga boole ca euh, yekkal leen si ginaar yi ak ci misu yi macha allahu taala ndax oustaz nag Sénégal fi mu nekk euh, euh, dama bëgg feet gi oustaz muy jax du yàq bu ko kenn tudde israaf ne yàq la ak ñi nga xam ne bu feet jotee korite wala tabaski liggéeyuñu ñu ñu sol seen sortu tëdd ca kër ga di nelaw wala ñu toog di naan attaay wala nekk seen téléphone inna li kulli qawmin iid wallaay dëgg la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu ñëwee medinatul munawwar la fekk leen ñuy fecc ka taas mu ne lii lan la mu ne dañuy feetu mu ne ñun de am nañu suñu feet mhm. ñu ne ko sang bi ñun lan mooy suñu feet mu ne jouru korité ak jouru tabaski mhm. kon oustaz jouru korité ak jour tabaski ñun nañ ko feete ba mu neex nañu sañse nañu defaraat kër gi nañu orne kër gi mhm. pourquoi 31 décembre ñu orne dëkk bi yëpp takk ay làmp te tabaski ak korité du ñu orne suñu jàkka yi du ñu orne suñu kër yi du ñu def suñu fleur yi du ñu taal suñu làmp yi te ñun loolu mooy suñu feet Oustaz Assane susu yéen jeunes yi ngeen xam ne yéen a ngi bo nekk si buntu àdduna mm-hmm. bu ma paree Oustaz ba dama la ciy boole waale benn question Oustaz moo dama gis Égypte man Korité euh, ci dëkku naar yi Korité daf ñu fay fekk lu gën a bëri lu mel ni Égypte lu mel ni Istanbul lu mel ni euh, Makkatal Mukarama dama gis ñoom veyu feet bi bu ñu nee weer bi feeñ na dëkk bi yëpp day rii am na lu ñuy wax de baat yooyu ñuy wax bisimilah. lu tax Sénégal duñ ko def wala ci dégg allahu akbaru kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila wa la ilaha illa allah wallahu akbar walillahi alhamd Seyda li ngay faral di wax rek saa su nekk moo ñu arrivé ñun mooy suñu diine dañ ko xamul dañ ko war a xamee wala li ëpp si ñun ak ñi ma ko soñ a wax ndax bari waay na loo xamante nii day nekk sunna sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam xëy na dañu koy réere wala dañu koy cof te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sunnaam ëpp naa cof ndax wax nga ko léegi nee na xeet oo gis am nañu bésu mbégte muy feet ñu deg suñu bésu mbégte ñaar yi la muy bésu kori ak bésu tabaski nga xam ne dafa war a nekk bés yoo xamante ni dañ ko war a fonk bés yoo xamante ni dañ ko war a bàyyi xel waaye itam bés yoo xamante ni surtout dañ ko war a préparer préparation bi si naka tey jii si korité la ñu jëm incha allah dal nañ ko fekkee tatal ko nga xam ne ni ko war a préparer yéen ñu ngi nii tey di waxtaane zakatul fitri ndax si la bokk itam niñ ko war a préparer mooy li nga xamante ni moom nga wax léegi bu buñ ne weer wi feeñ na tudd dinañ ci ñëw sax si kanam tudd bi ñu war a tudd yàlla ba kër balaa ñuy dem fa nga xamante ni moom moo di jullukaay ba mais tey boo xoolee muy xale yu góor yi ak xale yu jigéen ñi nga xamante ni ay jeunes lañ suñu maas gi bu ñu tolloo foofu seen yitte yëpp fi mu toll nii mooy tissu ba mooy ñaw ba mooy tailleur ba da ngay gis koo xamante ni day fanaan si tailleur bi ba du xëye sax dem julli ji wala day fanaan si téer bi ba du xëy sax du tal sax jël kurusam wala toog di def li nga xamante moom moo di tudd yàlla boobule day fanaan si téer bi ba du xamante ni moom moo di zakaatul fitr di muddum koor bi nga xamante ni moom la ñuy waxtaane te yooyu yëpp benn bu si nekk dafa nekk loo xamante ni lislaam dafa am dayo bu mu ko jox boo xoolee julli bi dañ lay wax ne soxna si nga xamante ni dafa am ngànt sax na dem si jullukaay ba bu ñuy julli mu toog muy tudd yàlla béykat balaa ñuy pare mu delluwaat fa nga xamante moom moo di këram. ndax ngëneel ak yiw ak tuyaaba bi nga xamante ni moom moo am si bés boobu. ak barke. mais tey suñu mbokku jigéen ñi ak surtout ndaw ñi. ñi ngay wër ay greffage ñi ngay wër ay cheveux ñi ngay wër ay tissu ñi ngay wër nangam ñi ngay wër nangam ñi ngay wër nangam du du du oustaz doguma la de mais du du pour sol ko ci suba gi de pour que bu guddee ba minuit jot ñu mm-hmm. ubbi waat yi ñu tëjoon yëpp mm-hmm. pour demi soirée ji ko wala defi ko leneen waaye du pour sax sol ko ci suba gi pour dem ca jàkka ja euh, wala wala pardon mm. dem ca jullikaay ba xam nga foofu uh-huh. da nga laal point boo xamante ni dafa am solo uh-huh. mooy que kon ñun uh-huh. li ñu doon woor bëccëg bi du ñu lekk du ñu naan du ñu wax lu suñu yoon newul du ñu dem fu ñu warul dem du ñu war a xool lu warul xool guddi gi ña ngay naafila ña ngay nangam ña ngay nangam di def lu baax mm-hmm. kon loolu yëpp daal dañu bëgg bu weer wi deewee ñu gas ko bu mu xóot suul wala ñu denc ko sa armoire wala ñu tëj ko ba déwénate te jàmm du noonu sayda ndax yàlla ba muy farataal suñu koor dafa am lu mu tëje aaya ba mhm. muy laallakum tattaquun li nga xamante ni ni ko oustaz Mor Thiam di waxee stage la ñu nekk actuellement mhm. dafa jaadu bu koor gi jeexee rek li mhm. liñ defoon stage si weer wi yëpp ñu appliqué ko nag si weer yi nga xamante ni moom mooy fukki weer ak benn yi si topp ma baad ramadan ba ker balaa ramadan di ñëwaat insha allah parce que loolu la yàlla nam ma si ñun suñuy ñu tàggataat ko tàggataat suñu bakkan xeex ak moom si tey jii am na koo xamante ni bu wooree bëccëg weeru koor am na loo xam ne ñemew ko am na loo xam ne weeru koor gi yëpp sax doo ko ñeme ndax am na looy sàmm am na looy sóor am na looy bàyyi xel lu tax bu koor gi jeexee la allakum tattaqun bi nga xam ne moom la yàlla wax na moom la bëgg ñu jëlee ko si xanaa kon yow ma nga xamante ni yaa ngay waaj di na ni ko Seyda waxe moo xam xale bu góor nga moo xam xale bu jigéen nga di préparer sa yëf ngir guddi gi nga ne da ngay dem fecc ji wala da ngay dem nangam da ngay nangam xanaa kon yow ragal yàlla bi yàlla wax na moom la ñu war a jële si koor dafa am lu des si yow kon ni mu war a demee mooy ni ko seydaa waxee mooy ñu waajal ko tudd si yàlla bakk si yàlla dimbalante si ndax la nga xamante ni donte la génn nga muddum koor ba mu mat ak ña nga ko war a génneel ñëpp nga joxe ko fa tabaarakallaahu la nga war a jël di ko dem di ko soirée ji si guddi korité wala lendemain korité wala nangam yaakaar naa ne xajoon na si sa bopp wala si ay mbokk mm-hmm. te jullit nag saa su nekk xam lan la war di xintee oustaz Seyda di yokk ay yiwam di yokk ay tuyaabaam yeneen doomu aadama bés bu duggee suuf bu nekkee sofaan la doon def fii si kaw suuf dana ko rëccu xatta bu nekkee lu baax sax da nga ko rëccu lu tax yokkuloo woon lu baax loolu allahu kon lu baax du doy jàmm du doy tuyaaba du doy bu doon doy duñ fi fekk jàmm duñ fi fekk tuyaaba duñ fi fekk nangam kon fa tabarakallahu ma sha allah kon ndaw ñi nañu xam lan mooy lislaam nañu xam lan mooy seen diine ñu xam naka lañ koy appliqué ñu fiy waxtaane yëpp génn qaala allahu ak qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam tànk nag ñett yi rek lañ koy def mhm. soit dañ koy tànlal mhm. wala ñu bank ko wala ñu dagg ko rek li ma bëgg wax foofu mooy nit ku nekk da xam yow li nga doon mhm. xam li nga bëgg mënoo wóor weeru lëmm ba mu jeex nga jël sa ruux jël sa lépp jox borom bi subhaanahu wa taala ba benn bés ñëw ñu ne la lii mooy sa feet dundee ko nii ak nii te lislaam ni mu jàngalee pour ñu feetoo ko mais dara dàqu ko xëyal balaa ngay xëy boo amee loo joxe mu dum koor joxel boo mënee tudd yàlla tuddul yà tuddal yàlla sangul ba set sañse xeeñ lu neex dem sa jullukaay ba ballunte àq yow ak sa ay mbokk jullit ak say dëkk ndox say am di jàmm ba pare ñëwal si kër gi lekkal ba suur naanal ba sa xel dal fa tabarakallahu ataaya ji jolli yépp baax kalaaju kalaasu alaaji asan ngay ji bég kon bu ngoonee nit ñi ñëw dem ziarante yooyu yëpp nekk loo xamante ni lu rafet la kon ñun waruñu def leneen lu dul lii. parce que jullit tamit Seyda foofu laa lay delloo kàddu bi dafa am loo xamante ni daf ko war. Mm-hmm. daf ko war a xam mu nekk si. waaye laa mi laa ilaha ula wala ilaha ula loolu yàlla xamul loolu. Mm-hmm. da ngay ñuul wala nga weex. léegi nag yow yaay choisir. Mm-hmm. nit ku nekk nag sa xel nga yor. te jàpp naa ne ay jullit lañu te bëggal nañ suñu bopp lu baax. oustaz Mor waaw oustaz foofu. Euh, léegi suñu xëyee suba teel di dem si jumaa ji kon dañuy dañuy woor ba egg si jumaa ji ba wëññeeku waat. wala déedéet déedéet déedéet déedéet. ndax ñun dinañ xëy toggal leen ay laax yu neex. déedéet moom kay maanaam dangay ngay da ngay da wane ni. Mhm. feet gi tàmbali na. feet gi da ngay wane ni tàmbali na. Mhm. bu fekkee koo xamee ci ni ki daan xëy suba teel defal dose. bu dëgër. Mm-hmm. na defar doos bu dëgër yor koppam wala taasam. Mm-hmm. di dox ci digg kër gi di naan kafeem. di waaw ñu xam ne tey jii wari na. muy laaj ana sama marakis bi ma préparé woon ak sama grand bi. Mm-hmm. wala na sama koppati bi. di yor kafeem nit ñi xam ne tey jii tey jii dog na. waaw maanaam wane. wane ni tey jii bisu feet la di laaj lan ngeen manqué ndoom mbaa manqué wu ñu dara est-ce que suñu dëkkandoo bi sàngam mbaa nàngam ñu mel noonu ah, su su dëkkandoo yi waaw yooyu yooyu la ñuy soxla ba pare contrôler est ce que muuru koor bi ma waxoon nañ ko génnee gi mbaa jot naa dem parce que man damaa guddee waa ci démb yooyu yëpp waaw waaw oustaz dégg naa yéen imaam yi donc laa koy waxe ndax bëgguma ay ñoom imaam Moustapha Gueye ñooñu mere ma dégg naa yéen imaam bi dañ leen di jox muuru koor yi ngeen dajale ko ba mu nekk ay kii ngeen tëj ko ci kër gi te du ngeen ko génne bàyyi ko foofu ba nu julli ba pare am na ñu. ñu loolu daan na am nag dëgg dëgg dañuy wax nii. Ah. dañ daan teg ay saako ci jàkka yi. Mhm. nit ñëw di fa indi seen muuru di ko sotti foofu. Mhm. ci saako yi. Mhm. imaam yi duñ leen tal di ko séddale loolu daan na am. daan na loolu daanaka amatul daanaka daanaka amatul mais ba léegi. am na ñu ñu nga xamante ne bii ba léegi ñu ngi des ci coutume boobu. Euh, loo gisul rek bu mu tax nga jàpp ne amul. mais ñooñu nañ leen fàttali ni. xale bi nga xamante ni bii moo ko indi. ne sama papa nee na muuru kooram a ngi nii. xale boobu bu mu taxaw. ne ko continuer demal sa kër tonton diw. nga jox ko ko. allahu bu mu taxaw ne yow indi Assane moo indi ah sa mbàppa nee na sama mu muuru kooram a ngi nii nga ni ko continuer demal sa tonton diw nga jox ko ko mu keneen ñëwaat nga demal sa tonton diw jarul ngay boros saako di teg parce que du pour yow dañu wax ne nañu fexe ba jour boobu faqiir yeeg miskin yi bu ñu sentir na ñoom faqiir lañu bu ñu sentir na ñoom miskin lañu am na itam oustaz lu ma doon gis ñun dëpp ñu nekk xale dañ ko doon gis mooy tong yi ñu doon def si jàkka yi nga xam ne des fois dañ ko doon jaay waaye léegi itam dinañ gis ne boroom ñi nga xam ne seen loxo jot na seen ginnaaw ñuy jënd ay nag ak ay xar ak ay ginaar di ko yónnee ci jàkka yi loolu euh, loolu loolu oustaz ba baax na de waaw xam nga bu njëkkoon euh, euh, doole yi tolluwul noonu mm-hmm. ñi ñuy boole seen doole di jënd nag di ko séddoo ñëw di ko séddoo ci ci quartier bi ñi ci bokkoon ñu ku nekk ñëw jël sa wàll mm-hmm. loolu daan na mais léegi dafa am ay ay yu baax waaw defkatu yu baax mm-hmm. Euh, sa jàkka yow ñaata nag euh, nga nga prévoir ak ndax am nga ñu ko indee gumbal la dee. daaw euh, daaw defoon daaw noot tamxarit bii paase. Mhm. yàlla defaloon nañu sutura jotoon nañu am lewetaloon nañu juróomi nag. macha allah juróomi nag defoon nañ ko. ak quatre-vingt-cinq poulets. Hmm, macha allah yow il faut nga wutal ma néeg yaraax ndax man man Assane fi mu nekk a ah, waaye déet déet du ma ko mën waa HLM grand yow. xam nga Seyda non non non non damay bañ ñu mer damay kii rek oustaz noonu ay affaire u neexal waxtaan la rek mais xam ngeen yéen waa HLM grand yow. yaay noo ba ca Fondé ba Fatmata lii ca Cagri ba nabu Seck ak nabu commissaire ca ca supp yaag yooyu taxuwuma damay neexal oustaz rek. ci ci li nga wax noonu moo tax may judd lool man dafa ja dafa am yàlla yoo xam dëkkuñu sax yaraax mais suñu cofeel seen digganteeg ñun ak su mbokkoo gu dox suñu digganteeg ñun ma cay jiital ca nuyoo ba Habib Biaye Habib Biaye yàlla ko yàlla Habib Biaye nag moom moom ñun xamaguñ ko de ah ah ñun xamaguñ yoo xam nga Habib Biaye Habib Biaye ah. Habib Biaye day su ma juumul ah. mas nañ daje benn yoon kër soxna Baali Muntaka soxna Bally Mountakha. tax Habib Biaye ñu ngi lay ziar moo nekk Côte d'Ivoire suma juumu waaw waaw neen Habib Biaye. Habib Biaye booba laa gëj a gis nag bu mu yem yaraax rek. ndax kat sinon bu ëllëgee bu ustaas bi wax ñun suñu bañ day nekk de xam nga ne maire yi suñu maire yi xam nga nu ñuy def soo amee goro bu doy waar su xewlee nga nga ngaaw bañ a wax daaw <laughs> lu xew daa daan ne ah la yaay lu la jot ah, nga ne ma bañ a metti ma bañ a la metti a la metti de man de fi mu nekk mënumaa wax naawu parce que comme maanu na ba bëggulaa wax dara mu wone ne goro bii ci kër gi daal dafa fi lu jar tey man xewam bii ma génn di ko won ippi baa ngi ippi baa baa ngi du ñëpp a ah. koy am li ma leer ba leer ma mooy mhm. bu nekkul di suivre émission bi. Habib mhm. Biaye moom. moom moom bu nekkul di suivre émission bi. Mhm. am na ñuy suivre émission bi. Mhm. ak a gaaw ci yónni Jibril. na yoon ni Jibi. macha allah macha allah Jibril de moom la Seyda. na yónni Jibi rek dafa am ko xam ne Jibril laa ko tuddee. Jibril ah, Jibril. Ah, <laughs> <laughs> <laughs> non li moo dàq suba la tabaski da nga am xam tabaski waaye li moo ah, dàq suba la tam xarit mooy daal ñu ngi ñaan maanaam maanaam mm-hmm. nit la ko nga xam Habib nit la ko nga xamante ni euh, amul benn mbokkam mm-hmm. benn am di jàmmam mm-hmm. tabarakallah macha allah yal na ko yàlla. laa dur. waaw yal na ko yàlla yal na ko yàlla doole kattan xam naa ni moom bu ko suivre tamit. Uh-huh. am na ñu koy suivre émission bi. Uh-huh. dinañ ko ko wax incha allahu taala. ana Habib ñii am naa seen numéro. am naa seen numéro boo ma woowee ma jox la seen numéro ni ngay defal ñëpp ci lu baax nga defal leen waa macha allah waaw xam nga ne moom yow Isaata Jàllee nga jëkk a jàng bi ngay jàng. daal bi bañ la yóbboo ca daal bi Isaata Jàllee li muy def noonu li muy def noonu nag boobu la mhm. en tant que kilifa. Mhm. mooy dem ca daral ga. sol sol sol yéreem dem ca daral ga mhm. defar ko defar ko ba mu pare lewatal ko foofu def ko ba mu pare ba nga xamante ne bii doo ci sonn nit ku baax la Oustaz moo gis ne man. mu yëg ko ci oto oto indi ko ñëw taxaw na mu ngi nii bii sa bos la. bii bosu jàkka ji la bii bosu famille bi la bi lawul kitaab. nit ku baax la waaw waaw ana finti zaari nasibi léegi daal oustaz mu ngoogu kon léegi yéen ñi nga xam ne macha allahu taala. Habib suñu nag ñun waa wareef ñun waa wareef suñu nag waaw waa wareef Ramadan suñu nag na ñëw macha allah Tahirou Sarr dina def lu mel noonu. parce que itam wax dëgg yàlla. soxna Marème première dame toujours suñu suñu. suñu bu lewatalee moom it defe naa waa Yoff. itam loolu baax na xam nga lu tax oustaz lii ñu koy wax. am ku nekk si ligne bi waaw ki nekk si ligne bi. Hassan Khouzou salaamaaleykum. allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. Adja ñu ngi ziar. waaw ah, yal na yàlla na fi ci yow. macha allah. Ah. ñu bàyyi la ak Seyda. Ah, waaw baax na waaw. yéen yéen yéenay xaritu Seyda macha allah. <laughs> ñii sama njaboot lañu tur bi ak fooy wootee. ah maa ngi tudd Astou Fall maa ngi wootee ci Liberté. Astou Fall. man amoon naa xarit bu tudd Astoufal bu dëkk Elbeuf ah. waaw mais mais moom dañoo bàyyante léegi. Ah, ne nekkatul sama xarit moom. waaye yow moom kon léegi yow yaay sama xarit Astoufal Elbeuf nekkatoo sama xarit waaye Astoufal bu Sicap yow sama xarit ga ah waaw na nga def naka waa Sicap. maa ngi fi Zeyda ñu ngi ziar bu baax. a baax delloo soxna allah ñu ngi koy delloo. lool. jërë ngeen jëf. Ah, parce que ñu bari xamuñu affaire yu koy joxee. Mm-hmm. dëgg la. na trop. Mm-hmm. Mm-hmm. dina yu bari bari ñu xam. macha allah avant avant korité bi incha ah, allah rabbi. waaw amiin amiin gën a kontaan. asu. am nga calpe free money. waaw am naa calpec ah, yàlla yaa ngi nii waaye itam ah, koppar gaa ngi nii de. Ah. waaw <laughs> boo si bëgg. ah est-ce que koppar <laughs> comme man dama dama am dama amoon xarit bu tudd Asou Fall te léegi nekkatu sama xarit. comme yow yaay sama xarit bu bees. léegi yow dama lay jox free joxaale la ci ah maa def loolu ci takk xarit gu bees gi. Ah, mu ngoog waaw. après na yónnee suba. na mm-hmm. yónnee fii suba. Euh, boo ñëwee boo wala tey boo yónnee xam nga firi bi moom mën nga ko jot léegi Oustaz Assane dina la ko yónnee mm-hmm. léegi. mais tissu bi boo ñëwee ne man maa gañe woon tudd Astoufal nekk xaritu mm-hmm. yaa Seyda bu bees. waaye nee nañ koy jëlaate moytu ko de. <laughs> <laughs> noonu. <laughs> Eh, jërëjëf jërëjëf soxna as kon am nga fi benn tissu incha allah suba boo ñëwee wala boo yónnee itam joxaale sa carte d'identité rek ñu ñu ñu yëwénal ko jox la ko macha allah macha allah taala am na solo <laughs> man de xam naa ne xam naa ne kenn ëpp ma fit de eh. ah sant yàlla bi yi ñu ne ma joxeel benn wala xaalis ma boole xaalis beeg ah, tissu bi di jox loolu la baaxee waaw noonu la baaxee non parce que itam nekk nii laa bëgg an na suddal mi comme ni nga ko waxoon. waaw yokkoon bi waaw nañ yokk jéego yi fi mu nekk nii joxe rek. joxe rek waaw oustaz ba tey maa ngi ci imaam yi. dafa am ñoo xam ne soo demee ci sóoru julli gi ci la ñuy xutba di waxtaan ci muurum koor ci la ñuy xutba di waxtaan ci. ni ñu war a ñëwee ci julli ji ak ñaata kàbbar la ñuy def loolu sa jour boobu lañ ko war a def wala dañ ko war a waajal ci àjjuma bii di ñëw yéen imaam yi rek xam nga yéen imaam yi man moom bëri solo doo nga tax may laajte ndax man ci ginnaaw rek laay toog di julli Seyda waaw macha allah am na euh, bi dafa avancé léegi mhm. ndax gis naa imaam yoo xam ne sax léegi bu ñuy xutba mais téléphone iPhone 12 la ñuy yore ah waaw ah, wala mu ñu yore comme téléphone bi nga xam ne saan abu mbay ca marché au poisson moo ma ko jëndal sama karokaase ba daal naqari na ko moom macha allah waaw xam nga xam nga adduna bi dafa avancé mhm. te nit ñi dañuy gën di yeewu mhm. di gën di xam mhm. soo gisee bu njëkkoon bu imam bi xutba nit ñi di jóg di déserté ci xutba bi di dem te ñu naan xaar leen imam rendeegul wala xaar leen xutba bi jeex ñu koy wax ci micro yi c'est parce que booba temps nit ñi dañ dul dégg lu leen di téye Euh, yooyu moo daan sabab bi. mais bu fekkente ni bi euh, ñi ngi dox doxin bu nga xamante ni bi loolu la jamono laaj. te diine dàq ko. nit ñi dañuy accroché wu. dañ koy yàkkamti. dañ koy namm. dañuy soxla ñu dégg ko. ñëw julli julli bu baax jàng jàngin bu bu bu dal te neex te baax ba noppi ñëw jël xutba bu nga xamante ni dafa ak accroché wu ak ak actualité bi parce que yi nu war a wax jullit ñi dafa bari ah keroog de def ko yow wax leen lu am yi nu war a dafa bari ñu wax ko jullit ñi jullit ñi parce que nit ñi liñ doon wax ne benn góor gu baax moo ko doon wax bàyyi leen waarate bi te yee nit ñi nit ñi dañoo soxlu ku leen ne pëkk pëkk pour nu yeewu ñu jóg alors euh, ñëw ba ci jour bu nga xamante ni bii waxtu bu doon waxtu bu mu war la. Mhm. waxtu boobu weesu na. dëgg la parce que bi ngay xutba. Mhm. boobu julli gi ñaata kàbbar na weesu na. dëgg la. boobu joxee muuru koor bi weesu na. dëgg la. li nga koy joxe weesu na. Mhm. nga topp ci jaan ji jam ba noppi nga topp ci ginnaaw jaan ji jaar di dóor loolu per du temps la. moo tax nit ñi dootuñu ko déglu dañ naan kii li muy wax passé na léegi li nga war a def. mooy Saalum axawaati kaan. ajjuma bii. Mm-hmm. ajjuma jii nga xamante ni bii moo dëkk mbël. Mm-hmm. korité bi. Mm-hmm. ajjuma boobu koy fàttali. mën nga ko ci fàttali. bu ñu wo la julli gee ba noppi bayaanaat yooyu di am. nga dugal ci fàttali ci nit ñi loolu. julli tisbaar yi nga boo jullee par jëf ñaari minit fàttali nit ñi nga dugal ko ci loolu su xutba àjjuma bi kii bi jotee it bi jotee nga fàttali nit ñi fi àdduna bi toll ni jullit ñi war a comporté woo lan mooy xaar jullit ñi seen digganteeg seen borom seen digganteeg seen moroom jafe-jafe yi nit ñi di dund naka la ñuy def ba génn ci yàqu beeg yàqalante bi ku nekk actualité boo mën a ak nit ñi te lan la ci sam jàngale nga wax ko nit ñi nit ñi xam ko loolu soo ko tàmbalee di nga dem ba ba nga naan ñu jàng salaatu ala nabi pour yeeweeku te nit ñi dañuy accroché wu toog ak lu naaj bi tàng tàng. jërëjëf yow sa jàkka laay julli si ndax waaye est-ce que am naa loolu am naa droit boobu Assane. Hmm. am naa droit dëkk HLM Grand Yoff. Hmm. HLM Grand Yoff am imam am bërëb bu ñuy julli ma ne man fenn laa bokk si benn kuréel laa bokk kon kuréel googu moo doonte ne sori na ma damay jël oto fa laay dem jullijee ndax loolu tamit lan la ci lislaam wax jërëjëf Seyda euh, loo xamante ni jaadu ñu leeral ko gis nga rek soo ma ko mayee mhm. oustaz Mor dafa wax lu am solo mhm. maanaam imaam yi mhm. il faut ñu xam ne di ñu yëkkati ci kàddu mm-hmm. ñi ñu koy waxal dañ ko war di dégg mm-hmm. xaddisu nas ala qadri uqulihim boo ko déggee si ñaar la ba ñett non seulement làkk bi il faut ñu dégg ko beneen bi mooy nga waxee ñoom seen niveau boo xamante ni dañ dañ dañ koy dégg beneen bi itam nga waxee si la nga xamante ni dafa dëppoo ak jamono bi ñuy dund c'est très important parce que nit ki booy wax ak moom te li ngay wax ak moom dégg ko te da nga ko war a yee kañ la yeewu dina yéex bu dee da nga ko war a waar kañ lay waaru. na yéex bu dee da ko war a gindi kañ lay gindee ko parce que déggu la. dëgg la xamul li ngay wax. Mhm. donc xutba yi. jaadu na. Mhm. am na ñu koy def. Mhm. man noonu laay def man damay wax arab. tekki ko si olof. tëj xutba bi toog jógaat waxaat ko arab tëjaat ko si olof ñaan ñu taxawal julli. nit ñi xam. Assane entre guillemets ñi koy bañ. ñi koy bañ. dañ koy bañ ci àjjuma. dañ koy bañ ci ajjuma mais bu dee it dañ koy def bu dee korité waaw dañuy xutba ci olof ak arab mooy li ma la wax te xutba xutba la bu dee takk sëy la mm-hmm. dañ koy wax ci olof ak arab mm-hmm. macha allah mais bu dee ajjuma nag ñu ne ajjuma moom lañ jekk a tëgg ci nii xam xam nga même boo jëlee ajjuma bi ajjuma mhm. xutba ajjuma mais message la boo xamante ni da nga ko war a jox ñi ñëw di julli si selon la nga xamante ni moom nga tànn comme thème mu war a dëppoo ak jamono mhm. du dëgg mhm. mu nekk loo xamante nit ñi dañ koy dégg xam ko te par exemple comme li nga wax ajjuma bi di ñëw imam bu taxaw di xutba war nga wax si zakatul fitri war nga wax nu ñuy waajale julli korite war nga xadri nga xam ne loolu tey jii mooy actualité si diine ji nit ñi xam ne kat seen diine toll nañ si weeru koor si fan yi lii la laaj lii la laaj waaye nga bokkal rek euh, xutba ba Seydi Hadj Malick wala ba maam sëñ Touba wala ba sëñ euh, Abdou Khadir euh, doon xutba rek nga mokkal ko rek at àjjuma bu jot rek moom ngay indi ay naas ah, dama lay jox benn ah, exemple ku mel ni sëñ Ahmad Rafa yi Mbàkke waaw mooy caatu Serigne Fallou radiyallahu anhu mosuñ gisee mais aljuma bu jot bu xutba ba pare dañ koy dugal ci internet bi mhm. te lépp daf koy dëppale alquran ak sunna du ko teggi mhm. non seulement te da koy dëppale ak jamono dëgg la dinaa lay yónnee lien yi nga koy xool lu am solo lay def lu am solo lay wax bu ñëwee si li nga laaj rek maanaam est-ce que man mii tey waaw nga dëkk yoof mën naa dëkk yoof ne kuréel sàngam laa bokk mhm. bërëb sàngam la ñuy jullee ma bu benn jumaa ñaari jumaa ñetti jumaa te yépp ñu fay jull it mhm. ah waxuma boo julli jee baaxul de waaye gënul li gën. kon ku nekk daal li gën mooy. fa nga dëkk. nga xam ne mun nga koo doxe tànk. jaar ci mbedd mi nga jaar ci mbedd mi pour gën a rafetal xusnu jiwaay. loolu mooy sunna bi parce que tey bu ma dëkkee Oustaz Mor Thiam. Uh-huh. ñu dëkk benn gox. Uh-huh. mu yor juma. ñu uh-huh. fay julli it. telle heure man li gën. mooy ma jullee si jumaay gox bi jóg heure sangu dog sa dog. comme bésu koor la naan yamay naan def la may jëf dox ndànk dem sa jullukaay ba te li gën sax mooy nga dox ndax yiwu xam nga lu tax dox ale dox retour te booy dem mhm. fa ngay jaar ak booy na fa ngay jaar bu mënee wuute moo gën ndax loolu mooy sunna Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam beneen bi mhm. mooy Seyda il faut ñu xam lan mooy julli ak lan lay représenté mhm. waaw lan mooy lan lan mooy xekma bi waaw kay xam nga lan mooy xekma bi pour wane ne tey jii nii ñun jullit yi ñun ñi bokk pas-pas ñun ñi bokk gëm-gëm ñun ñi bokk benn yàlla benn alquran benn yonent bi sallallahu alayhi wasallam benn penku bi tey nag ñun ñoo xewle waaye yéen a bokk lépp ba mu des bokku leen nag weer wi weer wi ñuy woree ah kay xam nga problème boobu sànq réglé wuñ ko mooy léegi oustaz Mor tey ñu bëri julli gi da leen di rëcc parce que dañuy toog ci guddi gi di werante ndax suba la ñuy wari mhm. wala suba duñu wari ñu nekk ci di ko mbii coo ko mbàlloo ba am na ñoo xam ne dinañu wori mais duñ ko ñemee fësal dañuy làqatu daal ne seen waa kër waaw nañu wori rek mais duñu togg ba la laan demi ñu soog koo feetal loolu léegi moo am ci réew mi loolu tamit feebar boobu damay damay faral di wax ni waaw heure seentu weer mhm. heure seentu mhm. moo am fu mu tàmbalee am fu mu yem heure seen weer waaw moo am fu mu tàmbalee am fu mu yem. Mm-hmm. mais heure am information ci weer amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem. allahu akbar. c'est différent nag lu sew la lu sew la. waaw parce que taxaw di xool. mooy bu demee ba nga xam ne lëndëm na gisatoo dara. loolu moo am fu mu yem loolu am na fu mu yem. mais ki nga xam ne mooy joxe information moom mun na la koo jox. moment bu nekk. ñaata yoon la ñu toog di ci Sénégal gii toog ba digg bëccëg ñu ne woor waaw ba midi fekk ndékki nga ba teg sa añ. ñaata yoon la ñu toog ba digg bëccëg ñu ne wori leen. waaw nga toog ba ba woor ba midi ñu ne nañu wori fekk yow sax préparé woo loo togg wala loolu mu jaxase affaire yi ba pare nga. perdre nga perdre julli julli ji ay amul fu mu yem. mais julli ay bi mais ñun dañoo dañoo catégorie léegi ci benn affaire. boo xam ne ñun loolu daf ñuy dal mooy bu ñu toogee ba 22h daal amuñu xabaar ci weer bi rek ñu ñu tëj bunt bi même boo jotaatee xabaar boo ko joxee nit dootu ko jëm. dëgg la man bëgg naa modernité man personnellement bëgg naa modernité mais aussi il faut que ñu xool mu baax li ñuy def parce que ma ma mën naa ko ñàkk a gis ñu séentu ko mu ñàkk koo gis mais wala keneen dem fële gis ko fa mu nekk amul réseau wala amul crédit mu jóge fa mu nekk pour ñëw fu muy amee réseau wala fu muy amee crédit mu ñëw joxe information bi ñu ne tëj nañu ba pare moom koor war na ko mais gis na ko nit ñi ñi ngi lekk ba ci boo xamante ne bii du bëccëgu koor la. xam nga man li may wax foofu. xam nga mooy lan. Mhm. mooy li ma doon wax léegi rek. si mhm. julli bi mooy ñëwaat si koor gi. Mhm. maanaam benno bi ñu war a bennoo parce que weer wi du ñaari weer du ñetti weer. benn weer képp la. weer wi nekk Sénégal. moo nekk Burundi. moo nekk ba Indonésie. benn weer la rek. kon li nga xamante ni. moo war a am suñu diggante en tant que ay jullit man li ma jàpp mooy problème de confiance xam nga lu tax waaw parce que jullit bu ne boo jàppee sa moroom ni sa bopp doo fawee weer wi feeñ na wala feeñ parce que amul jàpp naa ne man Xasan amul benn jullit bu sañ a taxaw ne gis naa weer wi te tegu ko bët ndax xam na li si nekk si danger moo xam weer bu ñu war a wooree la moo xam weer bu ñu war a wooree la moo xam weer bu ñu war a tëbaski ak beneen weer parce que tamit weer yi si la ñuy natte ba yegg sa si li nga xamante ni moom moo di si koor gi kon li nga xamante ni moom moo war a mën a nekk si waxin mooy que ne bu jullit ñëwee ne man day gis naa weer ñu nekk ndax jullit nga mu ne waaw am na seede mu andi seede na man ak diw mii gis nañ ko wala mu nekk góor na man gis naa ko mu wóor na nañu ne jullit la mais lan la ñuy hésité bu fekkente ne moom da si dugal ak caay-caay wala bëgg a bës wala lu ko neex wala lu neex ma sàmba wala ma demb loolu moog borom bi la waaw mooy gàddu koolu yëf mooy gàddu yëf yi mm-hmm. bu fekkente ne dafa waxal te yàlla rek tax ñu xam ne ah moom waxal na te yàlla rek tax bu ñu defee xayrun bu ñu deful nag bu ëllëgee ñun ñii la yàlla di laaj lan moo tax bi oustaz Mor Thiam ñëwee ne gis naa weer wi ngeen naka topp leen ko te muy jullit comme yéen wala taqulu li man alqa ilaykum salaama lasta mumina moom loo xamante ne bii mënoo ko atte parce que problème mu pas-pas la problème mu xol la mënoo ko atte koy bàyyi sa borom rek da nga koy bàyyi sa borom natawala zawahir natawala zawahir wa rabbu yatawala al bawatin mu ngi noonu la la waaja waxoon si alquran rek ant ba bi ko yàlla yónnee mu ñëw ne yéen sama waxeet ñëw leen bu fekkente ne li may wax dëgg la ñu ànd nekk si jàmm bu fekkente ne li may wax du dëgg duma lor kenn bu ñuy duma man mii la ñuy duma allahu akbar allahu akbar kon Seyda fànn boobu il faut ñu siy demee si uh-huh. ay tex si alquran ak sunna ak jullit yi tamit nañuy wóolunte ndax ñaari penku amul dëgg la ñaari yàlla amul ñaari arafat ñaari alquran amul ñaari arafat amul ah ñaari Sénégal amul wutante bi yëpp dinañ fexe moom ba arafat bi moom ñu ñu dundandoo ko ak ak saoudia man loolu nag jaaxal na ma loolu moom ñu jar kii man mos a gu ma dégg ñu ne tey Arabie Saoudite tey la ñuy arafat ñun dañuy xaar la ñuy arafat oustaz Mor bëgg naa la laaj man léegi mun naa xër ci diine bëgg rek ndeysaan yàlla ak yonent bi ak tuub nekk tuubeen bu bees jouru korité bu ma neexee mun naa ko woon ne man man doyaluma ci koor gi non non non non non dafa xaraam ñu oor bésu korité am ñu oor bésu tabaski kon léegi man bëgg daal bëgg ak diine du tax ma ñeme ko a fii dañuy wax ne ak doyalu ma ci koor gi ak doyalu ma ci boo doyalul ci koor am na ci ci ah, kon mais jour bi moom woor jour boobu moom foog nga marqué stop mooy sunna bi mooy farata bi mooy lu ñu santaane. kon suñ la weer wi feeñ na. waaw mu wóor la ne dëgg la weer wi feeñ na. nga woor bés boobu woor nga bés bu xaraam ma woor. Ah, allahu akbar condition yi daje na. Hmm. ba ne weer feeñ na. Hmm. nga bëgg lu nga bëgg a parparloo wala nga bëgg a wala nangam yaa xam lu la ci animé. Hmm. ba nga woor bés boobu woor nga bés bu xaraam. kon au lieu nga am si yiw daan nga siy am. daan nga si am parce que li nga def kenn sant la kon saafara condition yi wane ni weer bi feeñ. kon saafara ju jur jàngoro lay doon. allahu akbar sëñ bi xër wéy ci ndigal la ko gën. man saada fi amrina maa lay fa min far warat foofu warat aw man ahdasa fi amrina maa lay sa fa warat qul yaa ahlal kitaabi laa taxulu léegi gis naa leen ngeen baal ma xam nga yéen yéenay imaam yi ñun moom dañuy toog ci ginnaaw rek jàkk jigéen ñi ba moo tax gis nga Seyda tomb bi nga ubbi noonu brèche boobu mhm. Mhm. dañ ci war a dañ ci war a def yitte bu baax a baax a baax a baax mhm. gis nga mbiru weer bi sunu boroom parce que day yàqal nit ki de sunu boroom daf ci daf ci daf ci daf ci def lu mat sëkk mooy weer wi man maay am sama jukkoy bopp maa am sama melokaanu bopp di def sama yëfi bopp mais weer wi la ko yàlla santoon ca la ne la ko yàlla santoon ca dana bu waxtoom jotee dana génn bu waxtoom jotee dana dem wal qamara qaddarnaahu manaazila hattaa aada kal urdun al qadiim la ko yàlla santoon ca la ne la shams yanbaghi ñun ñooy am suñu yëfi bopp wala laylu saabiqu nahaari wa kullun fi falaki yasbahuun ñoom ñooy am suñu melokaanu bopp akbar bëgg caa dugal suñu bakkani bopp ak bëgg caa woote suñu yëfi bopp mais weer yi moom la ko yàlla santoon ca la nekk ñun ñoo am suñu melokaanu bopp léegi nag xam-xam yu bees yi maanaam su ma ko tuddee xam-xam yu bees yi. Mhm. mooy xam-xamu technologie am na xam-xamu astre am na borom xam-xam yaa ngi fi am pas-pas gëm diine nañ leen boole. ak boroom xam-xam yi nga xam ne xam nañu diine ñu toog bokkandoo benn jataay ñu organiser ko ñu bàyyi xëccoo bi maay jiiteeg maay topp ginnaaw ñu bàyyi loolu te jël ko def ko ngir yàlla ak diine ngir yàlla ak benn jullit ñi dinaa di dégg sax ñuy wax naan jullit ñi moom mënuñoo bennoo. ci suñu senegal loolu métti na ma. dinaa dégg ñu koy wax. Mm. mais man loolu. bokkul ci li ma xamante ni bii convaincre na ma. mais oustaz masuma la siif nga baal ma siif nga ana matalul mu'minina في تواددهم وتحاببهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تعاطى جميع الجسد أو سائر الجسد xam nga dafa am ñi xamante ne seen istidlaal xam ñi nga xam ne seen istidlaal mooy li li ñuy waxaan wala yazaaluuna muxtalifiin maanaam loolu awsa min haada al-itaar mais mais loolu min al-furuuc laysa min al-usuul loolu si furu yi la rek. maanaam daanaka li ñu dese ay. si forme yi la si fond euh, euh, li ma bëgg a conclure foofu. mooy mën nañu fexe. ba weer. ba weer lu bokkandoo. usbiri <laughs> toog waxtaane ko toog waxtaane ko. usbiri ñu jël ñi am xam-xam. ci domaine bi boole ñi am xam ci domaine bi boole kook ñeneen ñi nga xamante ni ay sage lañu ñu ñu ñu ñu toppatoo problème mu weer wi. am benn mahkama ulya bu nga xamante ni bii mooy teg ci taabal ji nii lañuy def ñu def noonu parce que yeneen dëkk yu organisé wu ba def noonu gënuñu leen. te mm. gënuñu ñu te ay jullit lañu. la tajtami ummati ala xata sallallahu alayhi wa sallam la waxoon nee na sama njaboot sama xeet. lu ñu toog ba dëppoo ko waxtaane ko takk si alquran ak sunna. duñ ci duñ si dem si njuumte. dama jot benn information ci ko commencement koor bi. Euh, ñu ni dañu wax euh, Serigne Mountakha. Mhm. ne ko commission bi commission bi. Mhm. bi ñu yoon seetloo seet nañu nangam ak nangam ak nangam. Mhm. mu jël responsabilité bi tegaat ko ci seen loxo. allahu akbar. ne leen dénk naa leen ko jël leen ci li ngeen ci war a jël. kooku ñaanam wàcc na. kooku ñaanam wàcc na noonu lañ ma ko wax xaw nag ndax noonu la ko waxee mais lañ ma waxee nii noonu la. noonu la jëfandikoo. Mm. donc ña nga xamante ni bi ñooy jël xaraar ya gannaaw ga. ñooñu ñooy ñooy ñooy ñoo yore mbir mi. Mm. loolu nag bu la ko sa kilifa defalee jox na la responsabilité. Mm. yaa koy dimbali. waa xanaa état Sénégal amul euh, kilifa bu mag boo xam ne lépp lu jëm ci diine ji tamit. dañ ko ko dénk pour mu saytu ko bi bi bi fan yi passé de gis naa ministère de l'intérieur. Mm-hmm. intervenir ci parce que booba temps dafa amoon xuloo ci commission bi. kullun yadda'i waslan li layla kenn ku nekk naan maay diriger mu ñëw mook mook euh, nu mu tuddati euh, association boobu Serigne Cheikh Tidiane Ahmed si seen si jiite ñoom Cheikh Cheikh Gueye. waaw ñu baal ma seen tur bi moom rëcc rek ñu baal ma. Mhm. Euh, ñu ñoo ci doon dox ay jéego pour que ñu mën leen dajale ci benn taabal ñu waxtaan ak ñoom pour que ñu mën a def. Euh, loolu ministère de l' intérieur woo leen mais man personnellement fi Aly Ngouille Ndiaye nekkee man bind naa maag ñu ma àndal dem ba ca moom wax ko ne ko lu ci jël responsabilité waa mais jëlu ko ci woon ba jóge na fi léegi Oustaz desaat na beneen benn laaj bii rek xam naa ci la ñuy tëje parce que léegi waxtu bi jot mooy léegi euh, julli ayit moo xam korite la Tabaski ci jàkk ji lañ ko war a julle wala ci jumaa ji walla forcément si cour bi si biti dañu war a wut benn bayaal bu yaatu ñu di ko si jullee xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ci ci ci fësal ci fësal mm-hmm. l'islam mm-hmm. te booba dëkkam amoon na espace mm-hmm. mu daan génne jàkka ja di ko yóbbu ca ndànd fay fay ndànd fay fay ga pour que mu mu mën a contenir mbooloo mi ñëw jigéen ñi setul mën a beru mais dégg lu déglu discours bi. ñi set mën a sàppe mën a ànd ak moom julli. xale yi ñu mën leen organiser loolu bokkoon na ci xikma yi tax. mu daan ko génnee. mais léegi ñun euh, loolu. Euh, bu bu amatuñu espace. amatuñu espace. Mhm. donc dañuy jël jàkka yi. te jàkka yi yaatu na pour mën a jël. mën a jël góor ñi ak jigéen ñi jàkka yi ñuy julli ci biir jàkka ji ñiy julli ci kuuru jàkka ji ñu continuer dem. ñu continuer jigéen ñi nga xam na nekkee noonu. Mhm. mais li ma mënul comprendre man. Mhm. defe ko ci bunte jàkka ji te jàkka ji. Euh, man loolu laa mënul comprendre. defe ko ci buntu jàkka ji te jàkka ji kenn bañ dugg ci jàkka ji ñu defe ko ci buntu jàkka ji man lool laa mënul comprendre. kon book yéen waa Sénégal yéen a ngi noonu. am na ku waaw ñu ngi ñu ngi leen di wax ñi nga xam ne AIMA lañu association des imams Adja Sagar sàll xam naa yow yaay suivre. ak taaxadi Sall nga waxal ñu suñu papa Moustapha Guèye imam Moustapha Guèye <laughs> ne ñoom ñi nga xam ne ñoo yore association des imams bi gën a mag ak imam Dame Ndiaye ñoom démb gis naa démb euh, ambassadeur turc bi jox leen ay ndimbal yu bëree bëree bëree bëree bëree bëri ñoom imam yi léegi ñoom imaam yi nañ ci sedd ñi nga xam ne eh, ñoo ñun ñun jigéen ñi nga xam ne ulama lañu waaye duñu ay aima jamiyatu murabbiyaat nañ leen ci sedd sedd ci ñun ñi nga xam ne asatise yi oustaz Moustapha Gueye ak jigéen non mais xam nga nag association moom boo ci adhéré wul ko imaam imaam ah, mais ñun jigéen ñi mënuñu ci parce que aima la lañu wax te ñun mënuñoo nekk imaam ñoo nañ ko mais ulama ci la ñu bokk ñun ñun ay imma wala ulama lañ def. ay ay imma wala ulama kon ulama ñun kay kon mun nañoo bokk ci ulama yi. lu tax yéen du ngeen ñu si boole. <laughs> anta minna. anta tax taalu bi. innaka waraqa bayda aw wurayqa bayda. huwa huwa yaxtaalu ni. wurayqa faqat. Euh, al'aan. Euh, léegi li ñuy li ñuy def. ana xaalis bi newoon fi. macha allah taala. Ah. enveloppe bi xaalis la defoon de ana xaalis ana koppar. enveloppe bi déedéet bii ko fu ma ko jëlee wallaay bu ma la ne kilifa ga ma ko jëlee ca taabalam waaye bi ma génnee dama ànd ak ay nit ñu dem audience ci benn kilifa bu mag léegi xam nga rek man damaa bëri solo au lieu que ma ñibbi ma duggaat taxaw di wax ak moom léegi nag mu di ma jox ay adresse ay numéro téléphone yi ma ko doon laaj bu sëram léegi amuloon kayit mu jox ma enveloppe bindal ma ci numéro téléphone bi léegi ma génn ci bureau bi xam nga liñ naan bul teg sa bopp ci baabu tux ma léegi ma génn maa ngi yore ñaari enveloppe yi léegi masa yu xaalu nas léegi kilifa bu mag la recevoir nañu ba pare au lieu que ma àndandoog nit ñi wàññeeku ma taxaw fa di ko laaj numéro téléphone ay sëram ak ak i bàjjenam léegi moom amuloon fu mu bind mu jox ma ñaari enveloppe ya nekkoon ca taabal ba ma jël ko bind ci adressé léegi yow mi taxaw di ma xaar ma génn ak ñaari enveloppe looy xalaat da jàpp da la jox fekk wallahi al azim dërëm def ko ci ay adresse ma wax xam nga itam loolu xam naa moo ma topp ba léegi ci enveloppe bi maa ngi ni doon fi bind parce que oustaz xam naa comme léegi ñu jeexal tey moom dars bi mu fiit jiddan laay wax euh, wax dëgg yàlla nit ñaa ngi woote rek di kontaan ci ni ngeen euh, abordé en tant que ay ay ay imam ndax yéen yéen a yéen a koy tatbiq yéen yéen a koy appliqué yéen yéen a nekk si jumaa yi te wax dëgg yàlla am na imam yoo xam ne macha allahu taala lu ëpp sax mais am na ñenn nit ñu rax ci sow mi karaw yu ñuul ñoo xam ne vraiment boo toogee di déglu nga dem di julli ji yenn saa yi da ngay dompet sa bopp kon nag ñu ngi ñaan yàlla borom bi subhaanahu wa taala yéen aima yi nga xam ne yéen yéenay suñu lépp ndax macha allahu taala ku ci dee yéen la ñuy ñun rek dañuy tëral ni imaam mooy taxaw jullee la imaam mooy wax ak yàlla bu boobaa. kon imaam war nañ bàyyi xel imaam yi dee leen neexal xam nga sama yaay Fapal yàlla ko yàlla yërëm. maam yi da doon def euh, euh, Aminata Mbengue Ndiaye mi nekk ministre da doon def euh, ñu tuddee sama yaay imaam suñu imaam suñu imaam. léegi nag Aminata Mbengue da doon def bu tàkku saane mu defar ji yu neex defar ay ginaaram jox ko doomam ni ko yóbbul ko imaam. mais comme moom gis na ne yaayam Tafat Fall la doon wax imam mhm. su ko yaayam ne yóbbul ko imam rek mu jubal ka Tafat Fall yóbbul ko ginaar yi yóbbul ko suyee <laughs> ba benn jour rek Aminata Mbengue daal di génn daal di gis euh, jabar imam ne yow sama bool yi ba léegi délé kooku ne ko yan bool mu ne ko yi ma yekkale woon imam kooku ne ko ah imam kon de loolu fàttu na ma mu dem këram ne doom ji waa yow yekk yi may jox imam kooku jox mu ne ko du taar Fatou Sall laa ko jox ndax yéen a koy wax imaam mu ñëw kat mais keroog lu neex loolu Fatou Sall ne ma maa gën a xam ne du ma imaam waaye comme moom ginaar yi léeg-léeg mu ne juy am te ñoom man la ñuy woowee imaam bu ñu indee rek ma teg ne ko tegal fii tey maay imaam bi kon loolu gis nga macha allah taala mu nekk loo xam ne neex na tey Fatou Sall génn na àdduna Adja Aminata Mbengue Ndiaye ñu ngi koy nuyu di ko ziar moom tamit ba mu nekkee fële waaw léegi euh, <coughs> oustaz itam am nañu benn tiis boo xam ne wàcc na démb ci famille kër Seydi Hadji Malick muy euh, soxna Ndeye Astou Cissé bu soxla umu borom waañ bi doon sëyëg suñu nijaay alaaji Moustapha Cissé génn àdduna démb laa ko gis ci réseau sociaux yi mais ba ma koy gis booba ngoon na ñu koy jaale soxna Kala di ko jaale soxna Daba di ko jaale Ami Kolle Diop di ko jaale waa Tiwaawan yëpp di ko jaale ñoom Ndeye Marème ñoom Adja umu xayri bàyyiwuñu kenn waa Tiwaawan yëpp famille sëñ Abdou Aziz di ko jaale itam xalifa bi mais di ko jaale itam waa pour waa Pire yaa Adja Awa Cissé yaayu ma dikkee démb rek mu ngi wook woo nee émission bi tax na moom dootul nelawaat ma dikkee mi nga xam ne moo nekkoon suñu biir borom baas yeeg sees yi mhm. te génn àdduna moom it yaayam ci boppam yaa Awa Cissé maa ngi koy nuyu nee na du tëddaat bu ko seetaanoon émission bi ba pare kon nag ñu ngi jaale waa ahlu Pir di jaale waa Tiwaawan soxna Ndey Assu yàlla ko yàlla yërëm yàlla ko yàlla xare àjjana ya gën a kawe yàlla gisanteeg maamam Serigne Babacar Sy waaye tamit gisanteeg borom këram boobu su suñu nijaay Alaaji Moustapha Cissé waaw tabarakallah Seyda liñ fi jot a nafar tey bokk na ci ñu xam ne muri koor am na ñu nangu ñu génne ko xaalis mhm. Mhm. manees na ko génne bu korité bi desee benn wala ñaari fan Euh, te ñi ñu koy jox tamit di ko yóbbu ca kër imaam yi ñu teel ko jox néew ju doole yi. Mhm. néew ju doole yi ñoom lañ koy jox. jigéen mën na ko jox borom këram. Mhm. comme mais yaayam comme dundam moom la war baayam tamit kadaalika mais daal li gën a wér mooy ñu jox néew ji doole yi nga xam ñoo ko gën a yelloo. ñi nga xamante ni bii dañ leen koy jox tamit mooy ni ko soxla. ñoom lañ koy jox. mu ngi noonu ñu gën ci bàyyi xel. te jouru fête bi tamit ñu sentir ne jouru fête la. ñu euh, dundal ko. ndax sunu feet la ñu feetu ci macha allah. Euh, fi ñu mujjoon a taxaw. mooy ñu xam ni. seentu weer. moo am waxtu wu muy yem. mais jot information ci weer amul fu muy yem. baarakallah waaw Oustaz Assane Seyda. Euh, am mbégte. di la jottali nag Adja Balma Balma Assane. Mm-hmm. Eh, am na benn jigéen bu ñuy wax Adja Ndeye Gueye. Mm-hmm. mu ngi lay nuyu bu baax mu ngi lay ziar bu baax a baax. Mm-hmm. Eh, Ramata Camara mi ngi nuyoo di ziare. ak mboolem ñi nga xam ne bind nañu di wax ne ñu ngi bëgg di nuyoo di ziar jottali lañ seen nuyoo jot lañ seen ziar mi ngi baalu ñëpp àq di baal ñëpp àq. Oustaz jërëjëf Oustaz jërëjëf Seyda eh, ñun dañuy am mbégte rek jàkkaarloowaat ak yéen waaye ndokkeel bu baax si gudd démb gi. Euh, Cheikh Yacine Doucouré mhm. borom xayma bi fële sa Pikine mhm. ndax njabootu Cheikh Sadou Abiy la bokk mhm. waxeetu Cheikh ak doomam xaadim euh, waaye ziar bu baax ñëpp a ngi wax sañ say suñu yaayu Adja Umu Idrissa ñaanal ko yàlla gudd fan ak wér moom macha allah bu quartier général la njabootam yëpp góor ak jigéen nag wallaay ak ay njabootam yëpp xaadim ñoom Fatou Kiné waaye ñun ñu waa Avoré pour Ramadan ñoom Khadija ñoom ñëpp ndokkee leen ak Ousmane ak Mouhamed Gueye sama ngëyeen yooyu nga xam ne fi mu nekk nii moom macha allah mm-hmm. yàkkamti nañ koor gi jeex mm-hmm. euh, Cheikh Abdourahmane Ndaw xam nga dafa dafa am mbokkam bu wàññiku démb mm-hmm. di doomu bàjjanam yal na ko yàlla yërëm euh, fële ca Kaffrine ñu ngi koy jàll di ko massaw di ko ñaanal mbokkam moomu yal na ko yàlla yërëm xaare ko aljana su barke ak suñu soppe boobu sëriñ Modou Sey borom tawfiq démb rek fa tabarakallah mu ngi may envoyé message moom itam di bëgg si émission bi di bëgg si nuyoo di bëgg si lépp fa tabaarakallaahu te di ñu bàyyi xel bu baax ñu ngi koy ñaanal yàlla guddal fanam ak ku ñuy wax euh, Mareetu Samb mu ngi fii si euh, Médina ak yaayam Faat si Mareetu maa ngi lay nuyu ñoom Cheikhou naa ñoom ñëpp dañuy topp émission bi ku ma lakkal la ndek Mareetu maa ngi koy nuyu bu baax nit ku baax la Seyda loo wax si bi ah diine ndeysaan mosuma koo gis xaw ma lii lan la sax. montre la rek. montre la rek raxul dara. Ah, déedéet. macha allah taala kon euh, nag euh, yàlla na nga ko muurloo. Ah, oh, yaa oh, oh, baal ma rek deux secondes. waaw Oasis service. waaw moo ñu ko jox muy Alioune Sall la tudd Oasis service. Ah. Alioune Sall moo ñu ko jox. ñu koy takk ndax dafa rafet macha allah. Mm. Euh, numéro am di 76 am na ay montre jigéen. dina la du ngeen am. waa kay suba incha allah ma andi leen seen. kon boog Oasis mu ngoog 76 la quatre dama naroon wax dama naroon wax man génn naa ci. mais suba. yow bu sa bëñ metti. bu sa bëñ metti yow bu sa bëñ metti <laughs> yow si biyaa yi rek la sa sama bëñ doon metti te dina wér léegi daal li ñuy wax mooy ñoo ngi sant yëpp di sant nag miyaar suñu doom jooju nga xam ne moom baax rek ma joxe numéro bi. waaw ah numéro bi. bàyyi ba suba ba mu joxe ñu a bi ma joxe numéro bi. waaw waaw leen di nuyu ak seen numéro téléphone téléphone yi ñuy joxe. Ah. nañu xam ne une minute euh, télé rek 2 millions et quelque la. Ah, kon kuñ la fi joxeel sa numéro téléphone. man la sama yére bi nga xam ne tey macha allah taala euh, gis ngeen ko ni mu jongamaa ni sama borode bi sama doom ay satu Jamanka bu Capio. Ah, bu maxtaat jàll ku baax ku baax waaw moo ma ko indil xam nga doom yi dañu dañu xam nga ne lii mënoon na koo ñaw sol ko ci moom sax la gënoon a jekk wala mu jox ko yaayam wala mu jox ko ay njëkkee moom mu nga fees dafa yóbbu Eh, ñi nga xam ne ñoo dem eh, ziyaare ji fees macha allah mais moo ñëw ba kër ga sama jour anniversaire la ko indi Adja Cuba Fall kubal ma ko ma daal di Adja Cuba suba dinaa leen jox numéro téléphone am yi ma mujjee sol nii yëpp Xalifa Mbergaan nag yow bu la dara metti tànka nanguwuñu may bind sa écritel bi sa yére bi duma ko sol léegi nag miyaa xam naa loolu dina ko lijjanti madame Ndour may nuyu itam madame Bax ndax madame Bakat ci kër gii dafa ñoo solal mbubbu avocat yàlla ko yàlla fay di nuyu borom këram ji Mamar Ba di nuyu itam goroom Adja Yata Wilane su ko defee oustaz may nuyu euh, macha allahu taala Mouhamadou Lamine Sarr nekk sama càmmiñ fële ca Ndofane ca ca euh, Sokone so euh, wax waaye di nuyu yi tamit monsieur le maire Samba Ndiaye bu macha allah taala xam nga lu toll ni maire mu toog ba weeru koor toog ba digg bëccëg taal otoom yónni chauffeur ne deme nga ne sama jigéen Seyda Fat Bintou Diop pañe ndogoom daf koo war a am ci man te joxaat nañ ko beneen tànk sax beneen ndomba tànk loolu yëg la ndax am na ku la gën a jege te loolu ñoru ko ci yom moom kon dañuy ñaanal yàlla ñooñu nga xam ne ak sama eh, sama frère Fallou Ndiaye bu ñoom Yacine ak ñoom kii soxna Awa macha allahu taala wóor na yàlla oustaz du du mais su damay geddaat de ëpp naa def bul su ma su ma su ma yónnee pañekoor ndax pañekoor yaa ngi fii di bàggante ci kër gi te jotuñu ci kon jënitu yàlla yooyu nga xam ne ñu ngi ñu yónnee seeni pañekoor koor yi yéene ñu ko yàlla na leen yàlla fay mais dañ leen di tudd Awa Dieng maa ngi lay wax ne bu déwénee yàlla na nga ko amaat ba di ñu ko jox may nuyu Adja Yacine Ndiaye ah, ak Awa njaay ñi nga xam ne ci ñoom la kii di nuyu itam macha allah famille Thierno Mountaga jox nañ ma seen taranga dama bëgg a xaar ba ñëw quartier général muy yow ak Pape Anne ak Pape Cheikh yëpp jox nañ ma seen taranga su ngeen ma neexalulee nag di wax ne damaa retraité retraité bi damay yóbbu yooyu bi mu de la tuddee tudd Ousmane Mor Thiam waaw naa ñoo moom ay retraité ma ne ma ne ko yow mi yàgg na jekk si retraité mu ngo ma rek retraité moom non non xam nga xam nga léeg-léeg nit bëgg la bëgg nga ñëw xulool si ko waaw wut porte lay wut pour ñu ñëw. non da leen namm nag chaque jour ma ne waa Seyda. non man samedi moom samedi moom incha allah ay eh, samedi oustaz non moom non non ñëw leen rek. buy ñëw hélico lay jëli ñëw yàpp ñu ci indi. namm na leen de. non non samedi bi moom nañ ko programme quartier général namm nañ leen. waaw loolu dinañ ñëw samedi incha allah ñëw leen defal leen benn kii kon wa axiru daawaana alhamdulilahi rabbil alamina miya ak ñoom daawuda ñi nga xam ne ñoo nekk euh, régie ñu leen di sant madame Gissé borom yekk yu neex yi macha allah taala yal nañu yàlla defal taw tawfiq may nuyu mam mi nga xam ne moo nekkoon si kanam gi di nuyu waa Sabina boutique ñi nga xam ne ñoo ñëw ci bijoux yi ndax par Cheikh nee na léegi xef yi par benn benn la ko quartier général xeftel <laughs> benn salon la xeftel kon ñun tamit dañuy dem ci bijoux yi dem ci lépp macha allahu taala di wax ne wa axiru daawana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ba suba ak jàmm mbokki téléspectateurs yi